salaamaaleykum mbokk téléspectateurs ñi sétane ci Asfiyahi ak Ovision Tay ñëwaat gi rek yeen ci sen benen numéro découverte Tay ñu ñëw découvrir euh, benen salon foire bi nga xamné moy dox euh, ci Ladoum cercle des éleveurs de la banlieue mi nga xamné moy am fi chaque année nek 7 septième édition bi initié par euh, ñom docteur Nia ñi nga xamné moy mooy éleveur banlieue bi

mu nekk lu ama am am solo ren ñu jël comme thème la paix entre les associations mu nekk lu am solo ndax jamm vraiment moy mom ci la lépp xaj que muy éleveurs yi ak fu mu secteur bu mu mënti doon jamm mo la lépp donc vraiment mu nekk thème bu am am solo donc ñu dugg légui ci biir découvrir cette exposition bi nga xamni mom la éleveur yi def ci salon bu banlieue bi mi nga cercle des éleveurs de la banlieue ñu xol tay xari dayo bu ñu am tay la euh, sax la yu mag di ñu ban mal après la wax ni euh, compétition bi donc ñu war leen exposition bi dem interviewer les organisateurs ñu gën ñoo mëna xamal tay euh, mbir yi ni Nous le secrétaire général euh, du CEP donc ñu vous ko alaikum. va bon ñu lay secrétaire général des de la banlieue. donc Aliou tay vraiment CEP vraiment changé na dimension ban organisation ngeen def ba war a wane exposition boobu bu nga xam ne tey vraiment macha allah am na solo trop ba nga xam ne gars yi xaaroon nañ ko te aussi fekk nañ fi attente bi ñu fi gis. bon avant tout d' abord damay remercier le bureau bi nga xam ne ñoom laa àndal di liggéey di remercier aussi le président parce que c' était pas évident parce que ren mooy suñu septième édition ñu def organisation bu day nii kon mënu ma balaa maa wax dara ma remercier ñi nga xam ne ñoom laa àndal mën a liggéey bu mel nii quoi à l'occurrence le président ak tous les membres du bureau voilà mu mel ni tey amoon na engouement aussi tamit na attente parce que boo seetloo e- d'après écho yu ñu am gis nañ ni que ni vraiment l'attente était file d'attente bo xamni tamit amna ci ginaaw bo xamni amna ñoo ñu sax participer parce que les inscrits dañoo bari won lolu tamit euh, est-ce que yéen a ngi xalaat pour année prochaine lan ngeen ko mëna améliorer. voilà ñoo ngi ciy bàyyi xel ñoo ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax lolu baax euh, loolu liko waral moy liggéey hein j'appelle tout le monde à connu ñu toutes les associations sœurs je les appelle à connu ñu parce que liggéey rek avec am solo boo cette année ci on a 50 50 euh, exposants en liste d'attente Le logo koy waral quest ce amul secret liggéey kese et puis moi, am transparence soit mes transparence tout le monde y gagne l'association va y gagner les membres vont y gagner voilà mu wane ni aussi tamit ren seen thème mo nek la paix entre les associations mu mel ni tamit loolu jamm dafa nek lo xam dafa am solo te moy tax nit ñi mëna a fuñu fu tay lan mo leen indil tay ba ngeen ba ngeen di def comme thème tay la paix. voilà moy lima la waxon rek damay rebondir ci lima ma la njëkk wax ni le liggéey bu andul ak jamm du am avancement il faut mo am jamm te association dañu wara jamm dañu wara jamm parce que tamit légitimité bon képp ko yor association am nga sa légitimité bok mais entre ñun il faut interchangeabilité bi am. il faut être sénégalais parce que ñun dañoo soxlawante entre ñun bu ku nekk indee la main dans la mer li ñu am dinañ ko bëgg té dinañ indépendant ba xam duñ kenn dootuñu soxlaal kenn té ñëpp dinañu soxlaal voilà donc tay mu melni tamit concours mari tay tey dañoo tee daal fekk mu ñu xam ni mu ngi dugg donc tay nan ngeen préparer concours mali mak mal adulte voilà tay tamit journée bu spectaculaire la parce que tay moy euh, présentation mal adulte mu nekk lo xam ne tamit lu ama am solo la parce que lo gisé ni pour départager leen du yomb parce que ñëpp dañoo liggéey ñëpp liggéey fim mu machine bi rek

à que nous inscrire CEP parce que CEP dans un premier temps famille avant tout famille parce que ñu nous c'est l'association boo xam jour bi ñu def suñu cérémonie officielle muy avant avant euh, après demain dañuy waxaale suñu datu foire l'année prochaine kon ñu ngi tout le monde que ñu nous inscrire parce que CEP fini pour la bon la main dans la main xëy peut-être ñu pouvons gagner quoi Inch'Allah gis nañ aussi amélioration bi nga xam ne tey concours mi ngi doon am ci suuf léegi indi ngeen ko ci kaw donc mu am ñu gis beneen dispositif quoi. ok loolu li ko waral nag xam nga lu ne da nga koy jox ki ko moom avant ñuy commencé xam nga dañu xaaloon ne fii 210 box moo fi xajoon l' année dernière ñu jëloon supplénaire bi yëpp mais cette année on a fait appel à un technicien de surface mu jël affaire bi photographier ko dugal ko ci ay machine am wax ñu ni mën nañu am plus que loolu biñ ko dégloo mu indi mu indi savoir am effectivement on a vu une différence une très grande différence. Parce que cette on a exposé 271 box plus les laboratoires. L'année dernière, on avait les mêmes surfaces et on avait exposé 210 box plus les laboratoires. Donc on a 60 box de plus pour utiliser en surface. Quoi. Ok. Donc, donc, par rapport, par rapport euh, par rapport aux événements qui sont à venir aussi une innovation qui une préparer à l'avenir bon innovation bi comme je l'ai ko au départ bon que les petites catégories ñu may leen sens petite catégorie dañ leen may sens ba seetaan plus beau plus belle parce que nous avons bon 4 5 6 mois nous avons concourir ak 12 13 mois Nous, avons dit que ce n'était pas proportionnel Nous avons leen sens pour ñu mën leen ñu mën a nous ñi nga xam ay mag lañ plus beau plus belle loolu aussi ça fait partie des innovations. beneen innovation mooy machine bële na le machine de contention bële na le dañ ko jënd commandé ko à de Chine bële bële na le dañ ko commandé à part de Chine fi mu toll nii poids bi dafa am ay capteur capteurs yi dès lors que maal bi yéeg bet bi bu yéegee ba mu enregistré ko rek fu bet bi mën a dem poids boobu la koy jox bu xësee ba ba homologué ko rek day génne benn point bu rouge prôné ko paal bi fu mu mën a déplacé wu Ben, ben, ben, ben, kii bi la jox quoi loolu mu nekk mu nekk innovation boo xam innovation de taille parce que poids bi dafa bëri na ay contestation nit da ñëw non sama mal. xam nga buy dox bu doon ancien méthode bi buy dox day changé muy varié muy varié ñu jël bi ci gën baax et loolu c' était pas sûr léegi nag moo tax ñu def appel indi machine boo xam ni dañ ko commandé depuis Chine mu ñëw te gars yëpp aussi d'accord, accord nañ ci voilà mais aussi tamit ku wax wax genre organisation aussi nous avons ñun pour mal mhm. ça vaut le coup aussi de participer à une fois bien bien vrai que nous ngi découvrir mais aussi nous gagner conséquent est ce que c'est voilà nous hein. considérer comme Fred. Nous considérons considérer comme comme bon. comme les souverains qui ci souveraineté association souverain kenn ku nek ni mi doxee ñun bokkuñu ñu ni ñuy doxee parce que ñu ñi ñuy doxee am na ñu koy doxee ñeneen ñuy doxee ñu tamit mën nañu doxee noonu mais dafa am lo xamé ne ligne conduite la parce que ñun suñuy parrain duñ ci focaliser wu ci euh, espèces yi par exemple dañu amé parrain ba pare dañ koy bayyi mu autonome mu indépendant bu ko défé parrainage yi gars parrainel Mali ñu indi xaalis xëy parrain moy être rémunération bu gëna a élevé suñu rémunération mais ñun liñu gëna gën a focaliser ci concours bi moy transparence ak visibilité ak euh, xëy peut être euh, plus de transparence surtout ci loolu la ñuy focaliser wu maal bi fet la ñu ànd ak moom fete ko bon récompenser suñu mal quoi ñu loolu lañ gën a focaliser wu quoi. la boo amee moo bay tëjee. waaw xanaa di ñaanal ñëpp jàmm rek comme ni mu commencé ci jàmm ñu ñaan yàlla aussi ñu terminer ko si jàmm quoi et puis que la fête soit belle. merci donc Moussa nga gis ko noonu euh, ñi ngi ñi ngi noonu concours concours maal yu mag yi maal adulte yi mi ngi soog a dugg si noonu donc ñu seetaan tuuti concours maal yi ñëwaat.

en tant que consultant euh, aussi connaisseur bi nga ni nga xamé xaré ak yépp tay nan nga gissé tay concours mal adulte yi nga xamné tay tey mën nañ ni attente bi tey dafay yag attente bu bu am am solo la bo gissé éleveur ni ñu wër ni yépp tok di sétane xamné amna am lu ñuy xaar ci ci ci événement bi. d'accord euh dafa am lu fi xew lo xam musul am ci histoire euh, tay concours da dana am xari yi bu ñuy rek. ñu xam ban xar mooy jël ñaari xar yi jël pay deuxième jour troisième jour balaa ñuy natt mâle adulte yi gars yi bon spécialiste yi mun nañ la génnee trois premiers yi mais c'est le seul concours boo xam ne ba tey kuy tànn mun na la tànnal cinq wala quatre yoo xam ne daf lay ne première bi ci ñii lay génn mais kenn muusa ko waane ba assuré ne diw mooy jël pay wala diw mooy jël deux. kon kon concours bi seere na. dem naa musul lu mel ni musul am concours bu seere ni musul am ci histoire histoire retiendra parce que dafa am ndaanaan ñoo xam ne ñoo fi daje non seulement que niveau mal du leen ëpp dañ daan joo à l'époque dañuy nan un an deux ans yi ñu génn gars yi dañ daan euh, élevage dafa manqué mal mais du tey parce que tey maal mun naa la citer ay quelques noms ku mel ni Lamtoro nekk bergerie Selili ku mel ni euh, Damel jóge ba Mbour bu Mortala waaye ku mel ni secrétariat bu El Hadj Ndiaye luftu ku mel ni xar boobu ñuy wax ñambaalo bergerie xidmatul xadim bu wan family ku mel ni cargo joge ba euh, yoof xaw ma wakaam euh, juróomi xar yooyu kenn xamul te am na ñeneen ku mel ni Hamilton bu Moustapha Diallo xar bu doy waar six xar yi ma la limal nii te am na yeneen perturbateurs yoo xam ne ñu ngi à côté gis nañ fi ay bay drapeau gis nañ fi ay petit panthère gis nañ fi booy dégool ak ñeneen ak ñeneen am na ñoo xam ne xam naa leen am na ñoo xam ne xaw ma leen parce que xar yi aussi noo xam yëpp am na ñoo xam ne fekk génnuñu doo leen xam mais mu nekk concours boo xam ne seere na torop torop gis nga public bi fii fële foo sànni matt mu tàkk fi mel ni ñëpp tey lañ doon xaar est-ce xam ne ba léegi nit yaa ngi dagg bi yee di dugg ah ba tey nit yaa ngi dagg bi di dugg faar baa ngi xar bo fi nekké sax est-ce que da nga xam lu xew turbine yaangi ni yegna turbine officiel mais mënuma am place mu nekk concours bo xamné dina métti parce que Lam toro dafa gennon fila dafa njëkkoon genn espoir Thiès mu am maturation bu baax mais mu delu ñew fila ak comme adulte mu am 3e place mu fekk fa damel damel jël 2e place ko wam damel gagné ko fa ñu joggé fa damel dem tiwa euh Touba gagné mu delluwaat Tiwaawoon beneen xar jógee Wakaam bi wa wax Ninki Nanka mu dem Damel gagné Damel Bimu ganye gagné Damel mu dai ne day continuer gagné bi moom it mu daaw ñëw Saldek salon de l'élevage du département de Kër Massar bi fa ñëwee secrétaire la fa dajel secrétaire gagné ko secrétaire yaa mu ngi fi te bul fàtte ne ñambaalo dafa gagné Lam Toora Espoir waaw Thiès bi. ak minam minam boobu mu ngi fi xamul ndax ay génn wala du génn mais minam boobu ak lam tooro ñoo xeexoon foofu. mu nekk kon daal pour boo xam ne ay référence kese la ba pare yàlla xam na ne ña euh, naa la xam attention recours. TP Aldiboo moom bu naree daanu. wala bu naree lo am lu ko joxoñ damel lay doon ak recours Pamboj poids ba 181 kilos. kooku moom daa mel dana ko menacé dana ko menacé dama xamul ndax da koy jot wala da koy duma. bu mel ne foire bi aussi am na record bu ci daan muy record LCS femelle. ak auteur espoir 107. 107 waaw mais nag record auteur mais femelle moo des ñu jógee foofu tey maal yi mun nañ ne record LCS bay daan 168 officiel mu ngi menacé moom it. parce que waaw parce que Mali nga tudd nii gis gis Mali nga gis nañ fi ñu am ñu am LCS bu doy waar. ku mel ni mun naa la citer ñaar seen record bu ñu record bi du ma ku ni Lam toro ak ñam balo bu ñu 170 169 168 man lu bet. bett boo demee ci ku mel ni cargo waxuma dana jot Buur Saalum mais dina ko jege. Buur Saalum moom neexut jot ci oto. jot mais dina ko jege cargo su naxul. ak Hitler ak xaru Ousmane Gueye bi bu ñu amee cent vingt cent vingt et du ma bett. macha allah kontaan nañ trop ci amoon la bàcc lan ngay tëjee. li may tëjee xanaa di lii euh, élevage mooy gagné feetu élevage la mais bés bu mel ni éleveurs yëpp yàkkamti woon nañ ko téléspectateur média yi ku mel ni Asafia TV. ah ak yeneen télé macha allah yoo xam ne nit yàkkamti nañ parce que événement bu mel ni day dundal élevage day dundal élevage tey foo sànni mantu mu tak CEB dafa nek foire bo xamné dañuy innover dañoo bari doole lolu mo tak tey vraiment xel ya xelaat yëpp daje fi mais neexut ba neexut euh té dal lu lu duuf li ci nak bi xëjul. donc mu nekkoon Bathie Sall mu nekk koo xamné vraiment ku xam xam xari la ko xamné maîtriser na ligne ne maîtriser na champion yi lum la wax rek takal téré donc vraiment donc ñu seetaanaat concours xari ñëwaat ñu interroger quelques éleveurs yi nga xam ñoo indi seen xar tey léegi léegi incha allah. ñu taxaw ak xar bi nga xamni mom lañuy wax ñang balo nga xamni champion la vraiment gagner ay foire.

parce que soo xool presse yi maa li ëpp fii ñoo ko mag rek pour kii xool rek restauration bi màggaay beeg yooyu noonu. waaw euh, waaw. nan ngeen gisee foire bi ak participation Mali fi nekk nii yëpp. foire moom am na niveau trop neex na am na niveau am na organisation macha allah waaw. macha allah léegi yéen Niang mi ngi ci toll ci combien de mois yaa ngi ko ko wax. instant yii mu ngi ci 29 mois. 29 mois waaw. donc ça veut dire que ci Mali fi si nekk sax xale am na ñu si maasal am ñoo xam ne moom ñoom gënoon nañu espoir waaw am ñu bëri ñoo ñoo si ma ñoo mas ñu maasal ñoo xam ne ñu ngi fi waaw. donc kon ñu ngi leen souhaiter bonne chance jaajëf waay. waaw Moussa ñu ngi taxawaat ak champion ki moom defe naa mi ngi jógee ba Mbour bergerie Mortala Mortala ñu bàyyi sa waay grand Euh, tur bi Moussa la jóge bergerie Akhlu Badri de Mbour ñu taxaw ak benn champion ñu ko daan wax euh, Damel waaw du gan ci foire nag yàgg naa ñëw di def ay performance yu rafet moo tax moo ñu motivé ñu indiwaat ko fii ci sab bi pour mu jogante si ak ay moromam macha allah. tey Damel nan ngeen ko préparé tey ci concours bi gis ni vraiment maal yi fi nekk yëpp yëpp allah donc mu nekk concours bu serré tey nan ngeen préparé Damel. waaw dañ koy préparé doon préparé rek. amaana lim amon bu yokul mu nani ni du wàññeeku parce que xar boko ko rek lay nek ci mom dang koy xam quoi tay xar bu amé état dalay motiver pour nga indi ko mu xex so amul état dalay motiver nga xar ko gëru kon ñu leen souhaiter bonne chance. donc ku gis organisation bu toll nii def nañ ci ay moyens yu bari donc ñu laaj sam waji grand naka mom ñu ngi lay ziar. wa delo ziar bu wér. bergerie la. bergerie mam fallu bu Tafa Diallo. champion moy kan? ki moy amilton Hamilton waaw mooy Hamilton bi ñuy dégg. waaw moom la doomu Maku Sey la. yaay ji nekk Belle Dame Belle Dame doomu Saloum. waa kon composé ak Saloum ñoo ko composé. tey nan ngeen ko préparé. waaw bon préparation bu normal ah. parce moom jàpp naa ni. préparation bi sur le long terme la. donc du lu ñuy forcer quoi. day lekk naturellement ak famille yi moom déjà gabarit dafa nekk naturellement si moom donc bu lekkee tuuti rek pour mu am volume day yomb waaw moo tax sax. am ngeen seen xel dal na ci compétition bi. incha allah gëm nañ dañuy jël ndam li moom. bonne chance merci beaucoup. salaamaaleykum sëriñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ziar. tur bi bii ban bergerie la. bii bergerie euh, Amadou Sy. si Sy fan ba champion bi mooy kan. kii mooy Cheikhou. doomu Mediana la. Ah. yaa am doomu Komena Kosso. costaud ok macha allah tey nan ngeen ko préparé ci concours bi gis nañu concours bi vraiment concours bu serré tey nan ngeen concours bi ak ak na see. kii xale la sax kooku moom préparé wuñ ko sax concours dañu moom bëgg a xool maturation rek xam nga kon 22 mois rek laa xool. nii Niang Ballo gën a nekk xale am ku gën a nekk xale kii xale la 22 mois lay door damay xool maturation rek. tey nan nga gisee bi ak concours waaw foire moom macha allah moom nañ aduna amu solo que le meilleur gagne loolu la rek. merci Baye. jërëjëf. sama waay ñu ngi lay ziar. waaw ah, delloo ziar bu wér. waaw sant kii ban champion waaw kii mooy grand babu junior. Uh-huh. nekk doom ci grand babu grand babu nekk doom Renades Renades francophonie francophonie Koromak. yow moom maîtriser nga liggéey macha allah yéen bergerie seen bergerie fu mu nekk. Euh, mi ngi nekk Rufisque Arafat 2 waaw. tey ngeen nan ngeen préparé grand babu. waaw dañ ko préparé rek comme mu nekk euh, jeune. ñu bëgg a dugg xool ay mensuration am. mi ngi ñaata mois. Euh, mi ngi ci 26 mois. waaw si am na fu ñu ko fa a nekk xale. waaw parce que concours noonu lay tëddee quoi. ah macha allah. saa yi wane boppam ah, gis nga de daa ni concours daa mel ni préparé ngeen ko bu baax. ko bu baax moom. lan ngay tëjee. ah dañuy naan euh, que le meilleur gagne rek te ñu demee ak esprit euh, sportif fair play ciy taxaw ak ki nga xam ne tamit mooy Moussa nekk ci secteur élevage moom tamit nekk vraiment ki nga xam ni tey mun nañ ni photo xar yi ngeen gis yu taaru yeeg yu rafet yu ci bëri moo koy jël Moussa ñu bàyyi la nga présenté. waaw le grand champion maa lay nuyu di la ziar di nuyu ah, axlu élevage bi yëpp di nuyu éleveurs yëpp aussi di leen jox seen wàccuwaay. tey ban taxawaay ngeen am ak nan ngeen yéen ñi nga xam ne yéen ay maanaam yéen yor digitalu xar yi yéen ay photo yéen ay vidéo tey loolu ban taxawaay ngeen am tey ci bi. waaw waaw taxawaay bu ñu ci am mooy euh, cercle des éleveurs mën naa ni depuis deux mille dix neuf ba léegi ñu ngi si. te foire bu mu mënti am muy sep muy adam muy tëngéej muy mbuur ba gàmm dem nañ fi ndax lan euh, communication bi jàll à travers les photos. nekk loo xam ne jàng nañ ko yàlla dafa xam dayoo ñëw mun ko di ko def éleveurs yi bëgg ko aussi ànd seeg ñun ba tax ji bu ñu ñëwee foire sax bu ñu bu ñu bu ñu ñëwul sax bu ñu bu ñu fotowul gars yi dañuy dañuy sollicité waa ana Moussa ana ana président ana Pape Cheikh ah mu lekk loo xam ne dem nañ ba ràññeeku si muutuñ arrière tey jii leen lañ war a def góorlu si mën a mën a mën cee liggéey parce que secteur bi gars yi bëgg nañu vraiment tey jii ñu ngi laajte bu ñu feebaree sax gars yi dañuy woo saa ci loo nekk mbaa si jàmm mu nekk secteur boo xamante tamit secteur jàmm la parce que éleveurs yi dañu ko bëggante seen biir gars yi ñu ngi liggéey parce que boo xoolee xëy na daan natt ay espoir léegi jeune maa la ñoo koy am mu war affaire bi dox na nit ñi foroxee sax parfois dañuy foroxaru dañuy impressionné ba buñ téyee foroxee sax dañ naan mais est ce que ñu ñoo foroxee lii mais vraiment. nekk affaire bi foofu la toll quoi. waaw waaw moom vraiment am na doole franchement parlé parce que tey jii CEB bi mu commencé léegi concours fi jot jaar vraiment gis nañ ni yëpp yu jot jaar ay ndaanaan lañ ku ñu gagné rek da nga euh, yow yow am nga mérite parce que ñi fi jot a ay ndaanaan lañ te instant yi Mali mun naa ne concours bu neex nga dara gis tey. ko yi commencé na concours bi commencé na doy waar. waaw mu ngi fi parce que ay ñang baalu ñu ngi fi ay damel ñu ngi fi waaw ay lamtooro secrétariat ñoom ñu c'est des mal yoo xamante ne gars ko liggéey ay année année année ba tey jii ñu toll fii nii vraiment ni lañ ñaanal rek yàlla gën a barke affaire bi. tey looy tëjee Moussa. waaw li may tëjee mooy euh, wàllum élevage bi nag gars yi gën a gën gën a bokk nday gën a bokk baay xam ni tamit élevage bi nii la secteur bi docteur Niang bi mu koy sollicité mun naa ne nit mais jamono ji dem na ba fi mun naa ne sab xajatul fii nii xëy docteur Niang bugul génn banlieue bi mais ñu ngi koy ñaan deen mu yóbbu ko si ses ne bu ngay yóbbu dina gëna am nombre de box gars yi dinañ gën a am fi di ñëw mais aussi nga foog ni bu génnee banlieue bi tour bi day charme bi du dañ parce que c'est le cercle des éleveurs de la banlieue non c'est le cercle des éleveurs de la banlieue mais aussi le cercle des éleveurs de la banlieue dañu war dem ba ba du des banlieue bi dafa war a génn dafa war a génn de ah, mais est-ce que bu génnee dañu yàq leen ñu bàyyi leen non leen ak sa fii yàq sarme fii rek moom bis bu ne day déplacé wu waaw baa ngi a comprendre parce que parce que xam nañu fii nii carrément seb xajatu fi seb instant bi tey si set la ko waroon fekk xëy na dafa bi moroom mu escalé ko fii mais déwén ñu ngi ñaan mu defee ko seb affaire bi mel ni adam incha allah yàlla donc déwén incha allah dinañ ko laaj docteur donc ñu ngi taxaw ak suñu papa Amadou Diallo nga xam ne mooy def émission gerte gi ci 2STV bi ñu bàyyi la nga nuyu waaw ñoo ngi nuyook ak euh, suñu mbokk téléspectateurs yi ak suñu mbokk eh, Asfia euh, di am mbégte tey jàkkaarloog yow. vraiment ñu tamit am nañ mbégte jàkkaarloog yow di gis vraiment di rafetlu liggéey bi. ñu lay encourager aussi yow mun nañ ni bok nga ci ñu ñu ñu ñu ci ci émission pour ñu def émission yi nga xamni moy mooy mel yi nga xamni moy agriculture moy élevage donc vraiment ñu lay ci remercier bu baax tay nan nga gisee organisation CEB bi ak concours mal adulte yi nga xamni vraiment c'est c'est du très haut niveau waaw euh, di santat yalla di julli ci sangub sang yi sayidina mohammed sallallahu alayhi wa salam euh, tay 7e édition bi tay bo gisee li fi am da ngay xam euh, continuité la ndax daw boy xol waxtu wi ñi ngi amone 211 box ren ñu am 271 box ba am 50 éleveurs yo xamné ne bëggoon nañu exposé mais dañ leen mujjé dello sen sen engagement wane né CEB association la bo xamné dafa organiser wu ku xol daw xol ren xamné amna avancement li ngay laaj ci li nga xamné mo jëm ci walu amélioration génétique boo xoolee xar yi xam ne tey level bi moo fi nekk tey boo xam ne xoolee agneau yi ak agnelle yi démb nga xool mensuration yi ñu am nga xam ne élevage bi ñoo ngi liggéey boo xoolee tey tamit ci maal yi nga xam ne ñoo yéeg léegi mensuration yi ak euh, TP yi nga xam ne moom la ñu joxe wane ne élevage bi ñu ngi ci euh, jéego yoo xam ne jéego yu avance la yu am solo la

ay mag nekk ci ku mel ni euh, ki nga xam ne mooy suñu euh, doyen Seck mi ngi ci ku mel ni ki nga xam ne mooy gay mingi ngi ci Sidi Baara Sidi Baara Seck éleveur bu mag la def na ay preuve wane ko ku mel ni mbuub ñuy ay mag ñoo xam ne dañu ànd xale yi ku mel ni Alioune Badiane nekk xale ñoom Seck ah ñoom Omar day wane ne symbiose la ñu créé diggante mag ñi ak gone yi moo tax tey foire bi ala dawme tay ku fi ñew rek xamné eh, li nga xamné mensuration li nga beauté li nga phonétique gaay liggéey nañ ci bu am solo. dëgg la tey moo vraiment wax yu am solo. waaw association bi def nañ ko muy association yi nekk e, créer des coopératives. pour mën a am doole mën a booster élevage bi ndax boo xoolee ñii tey am nañ siège social boo xam ne euh, ñu ngi koy tabax 15 millions lañ ko jëndee tey am nañ matériel boo xam ne ay chevaux de frise yoo xam ne tey bu fekkee dañuy organiser foire li ñuy loué ji du bëri chapiteau rek la ñuy loué ji loolu nag organisation moo koy def ñu bëgg yeneen association yi nga xam ne ñu ngi fi ñu roy ci ñi nga cercle des éleveurs de la banlieue ci liggéey bu am solo bi nga koy def ñuy comité directeur bi waaye di jaajëfal docteur Ibrahima Niang. jërëjëf Père Amadou Diallo ñu ngi lay remercier ci vraiment ci cadeau yi nga wax cadeau yu am solo yi mel ni tamit day jëriñ rek éleveurs yi bu ko déggé tamit ak association yi mënuñu lu jul tiré ci ay leçons yu yu léni yu léni bolé ak yo xam da ni innovélo ci sen association donc Moussa ñu dox leen dig daje ba ci karam inshallah aussi xool public bi mën a laaj tey seen impression par rapport ak foire par rapport au concours bi serigne bi lo tudu waa man Issa lañ may wax Issa Gueye dëkk Pikine Ridis nekk jeune éleveur. Issa tey noo gisee foire seb bi ak concours bi nga xam ne tey vraiment amu gaa yi nga koy xaar boo xoolee public bi yéen ñëpp ñëw ngeen tey lan moo leen gën a indi. waaw tey moom man damaa ñëwoon pour supporter ci xool benn xaar boo xam ñang baalo moo ma fi indi wax dëgg yàlla mais même bu dul loolu sax man damay suivre élevage di ñëw di suivre élevage gis naa innovation bu garaaw si seb parce que seb gis nañ ne ren box na. xam nga en plus innové nañ bu baax a baax a baax si seen pijam beeg yëpp gisoo macération yi ñu joxe sax bu su fi am moo tax ñun public bi dañoo kontaan kon gars yi nañ bu baax seen élevage mel ni Maalu Ñang Baal aussi li mu am ci LTS doy na war ah yëm na gars yi de public bi yëpp yuuxu nañ de waaw mais record bi nag sama waajee ko teew ba léegi aboo liggéey xar yi xam nga du wala aboo liggéey que mu ngi ci woon kenn yeggagu fa te ñang baalo mu ngi ci 168 waaw kon record bi mu kër abu ba léegi élevage baa ngi fa looy tëjee ah waaw di gërëm rek di gërëm monde élevage di wax tey am nañu kontaan ci affaire yi ni muy doxee bu baax a baax di wax di gërëm tamit waa SEP di leen wax ni innové nañ bu baax a baax public bi kontaan nañ ni ñu defee seen projet bi yëpp ak ni ñu installé seen affaire yi nit ñi kontaan nañ ci bu baax a baax a baax Saliou ñom ñi nga xamni tamit ñi ngi jouer rôle bu am solo ci ci ci ci élevage bi ci organe ci ci foire yi nga xamni tay lu toll ni CEB wala muy Adam wala muy benen foire ñom ñoy retranscrire tay lepp lu ñi donné ci par rapport ak xarit mensuration yépp ñom ñokoy duggal ci groupe internet bi groupe euh, ki whatsapp bi xam sa gerte ak yenen groupe donc tay ñu bay la nga euh ñaga man ma ngi tudd saliw kan ñu xamé ma ci saliw Gaydal. ma nekk euh, reporter ci xam sa gétt audiovisuel chaîne YouTube ak euh, euh, groupe WhatsApp et consort ci plateforme plateforme digitale yëpp ñu ngi ci kon donc. tey seen liggéey tey par rapport ak nii tey est-ce que am na amélioration ci condition liggéey mais condition bi comme tey foire bu mel ni foire set dañuy tegal ay conditions yu agréable comme yeneen foire yi ni ñu koy defee ndax boo xoolee foire bu mel ni foire set dañuy mettre dans des bonnes conditions jox ñu fu ñuy toog mais jox ñu ay badge mais tamit ak li ci li ci dopp yëpp. connexion yeeg yëpp dañu koy jox machallah machallah tay nan nga gissé organisation 7ème édition wu SEP bo xolé 7e édition bi bo xolé ñun ñu nek ci réseaux sociaux yi plaque suñu plateforme yi on était en courant que euh, foire bi avant muy dem ben date bi box yi manké woon na ndax boo ñu ngi doon def 200 euh, box mais ren yokk nañ ko ba 260 et quelques. kon donc fofu dox nañ ma sha allah. tay no gisé concours mari nu mu séré tay tay lan la ci amateur yi wax. tay euh tay euh, bo gisé njaga concours bi nu mu démé da nga xamné dafa am niveau da bo xolé tay xari mën ci Sénégal ñofi dajé da damel mi ni génnoon na foire bu melni foire tiwawon damel mi demoon na foire bu melni ni foire Saint-Louis ñang balo de même ñang balo nekkoon na espoir jël ko fi dem Thiès jël ko. nekk espoir bu gën a tiitre ci espoir yi tey ñëw fii dëggal boppam ñuy xaar ku mel ni tamit Lam Tooro ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom. secrétariat ñoom secrétariat Ndukumaan mi toppoon ci euh, jëloon troisième foire seb bee passé ak keneen ak keneen ñu ngi leen a xaar. Mhm. tey boo amee looy tëjee. tey li may tëjee rek li may wax rek dama naan élevage bi moom léppay ku nekk la ndax ku nekk xaj na ci ndax élevage bi tey boo xoolee source de développement la ndax jeunes yi yi ci nekk tey bëri na mais ñu ngi ciy gis seen seen bopp te li ñuy wax état bi nañ ñu jàppale. nañu jàppale wàññi xont bi buñ ko wàññee rek xale yi bëri yi doon yi wala ñuy dem fenn Nicaragua ak lu mu munti doon dinañ fi toog am ci millions yi waaw. jërëjëf Saliou Kane ñu ngi koy remercier bu baax moom aussi mu nekk di def liggéey bu am solo ci ci élevage bi xam naa léegi ñu xooli éleveurs yi dem xooli box yi xam tey naka la éleveurs yi toogee naka lañ ñëwee ci seb bi ak naka lañ ko préparé. léegi ci concours Mali yi dem nañ xooli ko gis vraiment affaire yi am dayoo Mali yi nekk mu nekk concours bu serré léegi ñu ñëw fii ci box yi xool exposant yi ñu ngi taxaw ak euh, Djibi Ndiaye ñu bàyyi ko mu présenté wu wax ñu ban bergerie la ak aussi ban champion la fi waaw ñi Ndiaye ginnaaw bi ma la nuyoo nuyu ñi ma fekk ci foire bi yëpp waaw man maa ngi tudd Djibi Ndiaye ñu gën ma xamee ci Djibi éleveur. de Cambérène 1 tey ñëw di exposé fii à la foire des cercles des éleveurs indi woon sama benn champion boo xam il a 16 mois Nek cette bâtonnier mu tudd Alla Sakho mu nekk nii waaw. Ala Sakho ngay niko tay mais est-ce que bok nga ci concours bi wala numu mu wa waaw ñëw nak wajalon nañ ko wàccaay concours genre ba mu amee 14 mois parce que demoon na foire foire départementale de Dakar bi classé woon jeune mâle. ñu pare woon ko pour pour espoir mu wane ay mensuration yu doy waar léegi ñu ne dañ koy ñëw indi ñu ne dañ koy indi fii foire cercle des éleveurs pour nat ko espoir ba mu amee ba foire bi desee une semaine la jàngat te jàngat te indi les complications ci ci foire bi mieux vaut nag nga teel ko détecté bañ a concours quoi léegi toog sa ruq préparé ko pour mal adulte donc tey une participation ci foire bi mooy sa ñaateel participation bi 7 septième édition wu CEB bi mais tey ci sa wàllu participation yow ci concours bi une sa expérience. Oui, man bii mooy première participation. gaa dama doon une visite parce que première édition bi 7e édition bi dama doon visite ak yooyu mais c'est mooy première participation ci foire bi. waaw mais tey nan nga foire bi CEB bi parce que gis nañ ni am amélioration màgg na. tey lan nga mën a jàngat ci foire bi. non foire naa ci jàngat foire bu am niveau la parce que boo xoolee agnel ba ci mâle ba ci femelle yi yëpp dafa am niveau. boo xoolee agnel yu def ay 103 agnel yoo xam ne 11 mois la ñu am am 103 agne fu nu mu tudd jeune mâle yoo xam ne ni 11 mois la ñu am di def hauteur 109 alors que hauteur 109 yooyu d'habitude espoir yi ñoo ko am mu nekk foire boo xam ne am na niveau lool lool lool.

indi niveau yi ci nga bokk kon alhamdulilah. voilà mu mel ni aussi indi nga fi ay exposition bu doy waar gis nga gis nañ famille rafet vraiment macha allah tey lan nga indi comme exposition ci ay. bon exposition bi genre dama ñëw rek tànn parce que exposition mun nañ sama famille yu mag yi sax dañoo dañoo diis ay une semaine moo leen desee mais teewul indi naa ñaari espoir ak benn añal doomu Escobar ak benn famille bu mag. innocent mal espoir bi di àll sax surtout batonier bi yaayam nek dom domu domu yalmin léegi de sa fait def na exposition bo xamne na wax deug fa la rëccu moo dal daal koy ne te gaay aussi ñoom ñepp contane ci exposition bi waaw. lan nga ñu mëna wax ci àlla aussi tamit ñu ngi koy xaar ci ban foar pour pour pour mal adulte. ma wax deug fa yalla ni ni ni rek duma la nax ñu bëri waxon nañ ma dañ ko wara nat mal adulte nga xam ay mensuration mais xaar dang koy togg ma dara doo ko yàkkamti xar doo ko yàkkamti quoi da ngay def tempo tempo mais yor na mensuration yoo xam ne mensuration yu dal sama xel la dal na xaru éleveur yëpp aussi. comme mois bi a 14 mois. voilà à 16 mois mu wane yenn mensuration ak ak ak ak ak wet ak ak wet bu doy waar bii nga xam ne xel dal daal ci moom vraiment waaw. parce que yaa ko waxal sa bopp ba nga ñëwee da ngay naan xar bi bii box bi wane woo ko ci biti la gën a feeñee te ba mu ñëwee ci foire ba tey dafa mel ni bii mooy deuxième fois muy génn box bi ci à 16 mois. mi ngi noonu. donc tey lan ngay tëjee ji bi. booy li may tëjee mooy genre man xanaa nekk jeune boo xam ne nag jeune bu ambitieux la nekk wax gars yi tam ñu bàyyi jeunes yi ñu ñëw ci élevage bi élevage bi am na dara. investir investisseurs yi ñëw investir jeunes yi nekk si kër yi nekk ay ambi nekk ay jeunes yu bëgg xar ñu bàyyi leen ñu ñëw bokk élevage bi am na dara yaa dégg parce que fii da ngay gis foire bi tey li fi nekk ci jeune mun nga compter plus de une de jeunes yoo xam ne ni tey ñu ngi tedd ci élevage bi tey yaa ngi gis tey jii bu làmb amee doo leen ci gis yeneen yeneen yi nga xam ne ay affaire yu malfaiteur la doo leen ci gis ñoom topp ñu lu dul xar moo tax ñu ne ñu ne si yu mel ni lañ mën a am opportunité wax suñu yox suñu bopp parce que yu mel nii lañ mën a wax état mën a jàppale jeunes yi même jeune bu ne boo koy euh, subventionné mu am benn tëng bu mën a jënd parce que benn tëng rek mun na am parce que nekk na loo xam ne ne njaga gënu ma la ko xam c'est rentable da ngay jënd tey benn xar 500000 te teg teglu ko ci maal bu baax mu jël mbote 1 million nga am départ te yaay ji mi ngi fa te xar yi un mois ñu solala tëbuwaat soit mu am xar biy seex soit am xar bi triplé soit nga am xar bi at bi mu ciy jur ñaari yoon comprendre nga mi li ci nekk li ci nekk li ñu mën a wax bëri na xajul ci te waaw mi ngi noonu te yow aussi amuñu lu dul la jaajëfal parce que ñëwoon ngaa ñëw tam ci foire bi tànn box yi ngay dem wala box yi ngay kii non non yow da ngay gis ñi nga xam ne tey jii à chaque fois dañuy percer ci élevage nekk ay jeunes ñun am ñu dara xeeb ñu yéemuñu parce que bëri na fi ñuy def ay interview bu ñu neexee di ñëw ñi nga xam ne ay investisseurs pour wane seen seen seen élevage loolu amul sens yaa ngi dégg loolu amul sens amul solo genre da ngay ñëw ñi nga xam ne tey ñu ngi percer dans dans l' élevage ay jeunes ñu ngi ñu ngi tarbu ci élevage heure boo ñëwee yaa ngi gis élevage seen élevage muy changé muy màgg yow si ñooñu ngay focaliser di leen viser pour ñu mën a may ñeneen ñi ñu mën a dugg. loolu mooy yoon parce que ñun dañoo war a ñëw jël jeunes yi nga xam ne dañoo war a promouvoir jeunes yi nga xam tey ñu ngi apporter seen touche ci élevage. te aussi tamit ñu ngi leen xaar ci fu fu kaw fi mag ñu toll. donc loolu aussi day baax ñoom benn suivi bu ñuy def si yéen. mu mel ni wax nga wax bu am solo aussi xam dañoo war a ñëw entreprendre ci élevage état bi war fan yee rek dégg nañ ki doon classe élevage bi te kooku xam na ni bu ñëwoon fii foire bi tey dina xam ne lii du ay foo du ay caaxaan dina xam ne lii niveau bi mu toll tey fi foire France yi toll fii boobu la toll donc loolu la ñu amoon ci message bu ñu ciy lancé ji bi rek lan ngay tëjee nag ñu. tëj moom xanaa contentement am rek amu tej bi moom wax dëgg fa lañ koy lii rek am contentement bu baax a baax ci foire bi ñu fekkee ko ay ati ati ati ati ati ati ati ati fekkee ko ay ati at déwénee incha allah bi gën a màgg. amin parce que yéene nañ la ko waa vraiment lépp mun ñu ko wax sax parce que xamante nañ mais yéene nañ nga nga am télé bu gën a kii si télé yi quoi waa xol bee fees quoi moo ta ñoo far suñu frère nga. ah merci beaucoup. ñu ngi nii encore ci beneen box ci ñoo xam ni tamit ay jeunes éleveurs lañ ñoo xam ni vraiment bergerie boo xam ne ay jeunes rek ñoo ko ñoo ci nekk ñoo ko moom te ñoo koy doxal muy bergerie la Saloum. yi nga xam ni mooy suñu copain ñoom Maguette ñoom Ahmed Cissé ñoo ko moom donc ñu bàyyi saa waay mu présenté wu moom mu fi nekk. waaw ñu ngi ziar tey yéen a ngi fii nii si bergerie la Saloum nekk bergerie boo xam ne yàgg nañ ci élevage ay jeunes lañ mais yàgg nañ ci élevage lool ñu nii ñëpp di leen ziar bu baax. ñu ngi leen ziar aussi bi mooy bergerie bi nga xam ne champion boobu Albaraka fii la nekkoon mu nekk bergerie vraiment bu def bu dox ay jéego ci élevage. am ay sujet yu am vraiment yu am solo yi nga xam ne albaraka am na ko wala seen yeneen doom yi ñu am doom euh, champion yi am donc tey lan nga ñu mën a wax ci bergerie Saloum ak nan ngeen ñëwee ci seb bi ban nan ngeen ko préparé. waaw boo xoolee ñun moom suñu bergerie bi suñu liggéey moom. dañuy dugal maal waaw bàyyi ko bu produire euh, doom yi jigéen ñi la ñuy téye yéen yu yi ñu bàyyi la ñu dem dugalaat beneen maal par génération la ñuy liggéey quoi boo xoolee ci Elias sa tàmbale. Euh, Elias euh, jur fi ay doomi jigen Faris ñew tëb doom Elias yoy après ñu Baraka Albaraka Albaraka ñew tëb doom Faris yu jigen ni pareil pour ki quoi non la ki kan moy Arafat nek euh, doomu Bou Salem yaa nek doomu procureur quoi doomu solution ak procureur. ok machallah allah kon doom Bou Salem pap ñuy wax ni Bou Salem mo nek mal bi nga xamni mo jël auto auteur au garo donc mu nek liguey bu am solo bi ngeen def tay croisement bobu no len ko xalaté non en fait nag benn femelle lañ jëndoon. ci kii borom Buur Saalum. moom la amee recruté woon mais femelle bi mu ñëw dafa dafa porté woon. mu ñëw ci la ñëw jur fi kii ak seexamu jigéen quoi. macha allah moom mi ngi si ñaata mois. actuellement mu ngi ci 11 mois nii. mu ngi ci 11 mois. ah mun nañ ko séntu fi papaam nekk. waaw mu ngeen ko séntu fu ko sax. Eh. Ah, am nañ yaakaar ci moom loolu. est-ce que dugal ngeen ko concours jeune mâle. waaw dugal na concours jeune mâle génne yu baax si âge macha allah. kon mun nañu am yaakaar ci moom bu baax a baax a baax. def na hauteur 108 euh, à 11 mois LCS 147 def TP 115 te loolu yombul ci jeune man la mais tey yéen liggéey bi tamit lan ngeen ciy xaar par rapport ak moom ak relève bi mu war a am ci gétt gi. waaw boo xoolee xar bu jaar rek am lu muy bàyyi ci ci ci ci ci gétt gi quoi léegi moom bu ñëwee day ñëw motali loolu rek boo xoolee papa ji daan day def njool bu Saalum. day def njool mais moom yaay ji fi mu laal la solution LCS a ah, procureur grand rang bi rëy bi dañ ko ciy soxla si moom quoi moom moom bu ñëwee dina mottali liggéey bu baax a baax donc tey yéen fan ngeen toll ci liggéey bi ak lan ngeen boo leen amee loo leen di ñaax jeunes yi tey lan lay nekk seen morom waaw di leen wax ñu gën a jàpp rek parce que élevage moom nii la rek liggéey la nekkul lu yomb day jël temps ñu am patience rek xaar ñëpp day ñëw incha allah waaw ñu ngi remercier ñëpp ñu remercier grand Mohamed Ndiaye borom bergerie bi ak Maguette Cissé waaw ya, di leen di leen wax ñu gën a ñu gën a jàpp rek affaire yi moom nii la voilà. ok mu nekkoon bergerie waa bergerie la Saloum ak seen champion bu doy waar bi di Arafat di am 11 mois vraiment macha allah ñu leen wax ne liggéey bi rafet na Ahmed Ndiaye ak Maguette Cissé ñu ngi leen di féliciter ci liggéey bu rafet bi. comme ça ñu ñëwaat ci beneen box mi nga xam box numéro 82. nga xam mal maal bi ñuy wax ceddo moo fi nekk maal boo xam la vraiment kenn duko présenter ci élevage mu nekk doomu gaynde mu nekk mal vraiment bu exceptionnel ñu bayyi borom mu présenter wu rek après présenter ñu mal bi. alaykum mbokku éleveurs yi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp euh, di leen jox seen wàccuwaay euh, di rafetlu seen taxawaay yéen ci éleveurs ñu ngi kontaan ci yeen bu baax man maa ngi tudd Omar Faye dëkk euh, Nord Foire maal bu mu ngi tuddu ceddo nekk doomu gaynde nekk fi ci Nord Foire Diamalaye 3. box 82 ñu ngi ji bu baax. tey yéen maal bii nii euh, muy ceddoo vraiment turam wër élevage bi macha allah ci ay production am gis nañ ni récemment doomam jar na fi ay millions yu bari macha allah boo xam nga vraiment mu wane ni daal moom day jur loo xam ni vraiment day exceptionnel ndax doomam yi ñu jot a gis yëpp dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy yéeme daal tey euh, loolu nu mu demee nan ngeen liggéey nan ngeen tëggee maal bi. ah mais loolu grand dimbalu suñu borom la rek parce que affaire yi moom daanaka. comme que li nga xam ne maanaam ñun daal toppatoo rek lañ ci am lu ci des nga bàyyi ci loxoy suñu borom mais yàlla def na daal wax dëgg xar bu mos a tëb daal am na lu la yokkal quoi loolu moom yàlla defal na ko. mais xar bi nu la dikkee da nga koo juddule wala da nga koo récupéré. non ci man la juddoo dama yóbbu woon sama benn femelle bi gaynde di nekk ci Samir mu tëbu après ci la juddu quoi seex la woon sax mais benn seex bi dafa daanu quoi. da doon am macha allah Masha allah donc tey yéen sen élevage tey fan la toll lan ngay gën a yaakaar ak maal bi est-ce que tey am ngay doom yoo téye wala comment ça se passe. waaw bu njëkk bi ñàkk dafa xawoon góore moo taxoon bàyyi bariwuñu woon ay doomam parce que doom yu góor yi daanaka doon loon mën a mais nii nii moom commencé na def ay femelles quoi bari naa fa ay yu jigéen yu yoo xam ne moom leen jur. tey nan nga gisee seen ñëw ci sab bi ak gis nga engouement bi ak gars am euh, concours dayo lu tax tey xar bi di ci concours mais Thierno fi mu nekk nii pour man dugal ko ci concours daanaka est-ce que mën na ko indil dara. comme euh, daanaka éleveurs comme li nga wax sànq rek éleveurs yi yëpp a ko xam. parce que mu ngi jor euh, jur doom yo xam ne ko ku leen gis d'accord. moo tax daal ma ne daanaka daal di ko dugal ci ay concours ak yooyu pour man jaru ko quoi. donc tey lan nga am looy tëjee par rapport ak CEB par rapport ak foire bi organisation bi tey ban taxawaay nga ci gis ne moom la waa organisateur yi def wala waa kontaan ñi ci ñoom bu baax rek parce que ñoom it wax dëgg seen liggéey rafet na taxaw nañu amuñu fi benn jafe-jafe li des daal ci ñun éleveurs yi la ñu gën a góorgóorlu tàppe xol yi yéenante jàmm euh, kii daal gën a gën a defaraat suñu taxawaay daal bàyyi wax ju bari te liggéey loolu daal moo ci am solo quoi. mu mel ni ñoom sax ren la ñu woote ren moom jàmm la ñu woote donc jàmm entre association yi mu mel ni loolu aussi lu am am solo la. lu am solo la parce que lu dul jàmm jàmm ko gën. li ñu def nii maak yaw rek jàmm ko tax bu nekkul woon jàmm du am nañ gën góor góorgóorlu daal te gën a yéenewante jàmm te xam ne li nga war a am mënu ma la ko xañ xam nga nañ gën a góorgóorluwaat daal comme li ma la wax rek gën a góorgóorlu daal rafetal affaire rafetalaat suñu taxawaay bu baax daal ñun ñëpp. jërëjëf Baye Omar donc mu nekkoon bergerie Mame Cheikh Anta bu Omar donc ñu koy remercier ak champion bii di Ceddo ñu koy ñaanal liggéey bi yàlla na barkeel yàlla na ci yàlla def xéwal yu bëri bamu sut kawé kawe njottam donc mu nekkoon exposition box numéro 82 donc ñu leen def dajé ba ci kanam inshallah waaw Moussa ñi ngi ni ci xar bi nga xamni moy Lam toro nga xam ne moo baatal léegi record LCS bi ñu bàyyi la nga présenté wu. Euh, Matar Ndiaye laa wuyoo nekk bergerie Selili indi woon xar bi ñuy wax Lam Tooro di doom ci Kaya ak euh, As de Pique am âge 26 mois ñëwoon nag doon jongante si foire sab bi waaw ñu jox macération 118 3 fois ñu jox ñu 172 3 fois TP ñu jox ñu 139 ñuy xaar poids bi incha allah. 118 hauteur. 118 hauteur waaw LCS 172. TP 139. macha allah jërëjëf loolu tey nan ngeen préparé Lamtoro ci ci concours bi. nag pour wax dëgg rek te yàlla tax maanaam du xar boo xam ne lu ñu préparé dañ ko bàyyi màgg naturellement ku xool carcasse bi xam ne du xar bu ñu waajal pour concours. dafa indi état rek pour que ñëwee nañ ko ñëw mesurer ko xool lu muy joxe noonu lañ ñëwee mais du lu ñu waaj wax dëgg yàlla ndax ku xool état Lamtoro xam ni du xar bu ñu waaj ndax ku yoroon Zifa mu defoon ay nangam kilo soo waroon waaj lam doora kon taw la mais waajuñu ko woon wax dëgg yàlla mais nag day xale day xale moo tax li mu teg nii dara mais nañ ko xaar rendez-vous incha allah Adam janvier janvier 2025 foofu nag lay lay xeexee dëgg incha allah. mais tey ñu gis ni Adam bi passé magam moo ko jël magam muy Tokyo moo jëloon deuxième après expert mais tey yéen mu ñëw fii gis nga tey maturation yi mu affiché tey vraiment mu nekk loo xam ne liggéey bi am na fu mu egg vraiment bergerie de Sely yéen lan mooy seen secret. waa Sely nag moom wax dëgg yàlla ku ko xam xam ni moom dafa dafa gëm qualité ndax li mu am ni wax dëgg yàlla moom maanaam mérite la du sens. ndax yoroon na yeneen xeetu xar mais amu ci woon résultat bi malgré loolu muy liggéey di liggéey ba sunu borom wërsëgale ko kayaa ba Kayaa tegal ko lu leer li ndax daanaka xaram yuy jénn li lépp lu mu am ci élevage daanaka jamono ji tur bi bi am yëpp Kayaa moo ko jox di ko ñaanal yàlla tamit mu barkeel di gën a guddal fanam tamit suñu borom waaw ndax moom daal mooy noonu daal lépp lu mu am daal mérite la day amul secret daal amul secret bi daal qualité kese la kontaan naa jërëjëf kër kii mooy secrétariat. secrétariat. waaw waaye bu ñoom euh, Ndongo Ndiaye. waaw ñoom Ndongo Ndiaye waaw. bi noo ko préparé pour mu ñëw compétition. ah waaj nañ ko comme ni ñuy waajalee xar moom naturel moom. waaw doon dundee leen dundalee. leen ko ci concours donc tey dégg ngeen maturation jot a génn donc mu mel ni tey daa mel ni concours mâle euh, adulte dina seere. concours moom daa seere moom mais ñëpp ay jàmbaar lañ parce que soo déggee maturation yi nga xam ni gars liggéey nañ bu baax a baax te di leen féliciter liggéey bi pour mu continuer parce que continuité mooy lépp mais suñu liggéey ku ku ku ku ku ku yaa ndam rek am ko incha allah. macha allah jaajëf. waaw ñu ngi taxaw ak waa bergerie Sëñ Fallou ñu bàyyi sa waay mu présenté wu. waaw ah, grand bi maa ngi lay bëggee di la siyaar la jox sa wàccuwaay waaw yaa ngi ñu ngi indi Dial Diop mu jóge bergerie Sëñ Fallou Mbacké actuellement mi ngi tool ci 22 mois waaw. kon bokk na ci xar yu ndaw fii ci zone Mali. xar yi fi gën ndaw quoi. mu mel ni tay da ngeen ñëw pour pour pour xool mensuration yi. ndax espoir la waroon dugg mais dañoo ñëw temps yii am fox ñu ne nañ ko évaluer rek ndax déwén ñëwoon na fi nekk jeune mâle indi woon 10 mois jël quatrième place. mu ñëwaat rek nekk mâle adulte ñu ne nañ ko dugal rek évaluer ko pour foir si kanam ñu xam lu ñuy lu ñu ciy préparé bu baax a baax a baax waaw. tey nan nga gisee foire bi ak aussi seen naataangoo yi nekk fi mu nekk vraiment. défilé bu am solo boo xam ne mâle mâle adulte yi ñu ngi koy def fii ñu gis fi ay aussi ay mensuration ay records yi daanu. donc loolu war na liggéey bi am na fu mu toll. non élevage moom lool la moom élevage moom chaque instant rek gars yi ñuy gën a wane seen bopp ndax ren boo ñëwee ci foire yi nga xam ne éleveurs liggéey nañ bu baax a baax a baax a baax ndax boo xoolee maturation yi fi daanu te boo xoolee maan yëpp a baax nga xam ne gars yi liggéey nañ ko waaw di ñaan yàlla liggéey bi gën a yokk ci kanam rek incha allah donc Dial Diop yéen a ngi koy waajal ci yeneen foire yi ñëw. waaw ñu ngi koy waajal ci yeneen foire yi ñëw comme adam yi nekk suñu kanam moo tax tey ñu ne nañ ko évaluer xam lu muy génn fii ndax ñu ñu xam forum ak ak ak fu mu mënee dal ñu ñu gën ko mëna préparer bu baax baax a baax. incha allah jaajëf. ñu ngi nii ak benen mal mal bu ñuy wax cargo mal bo xam aussi kenn du ko kenn du ko kenn du ko présenter fi ci milieu élevage bi. wane ne dal vraiment compétition mal adulte yi defe naa bu dee mus na amit ragal na ne bi moom mus fee am donc ñu bàyyi sama waa ji mu présenté. waaw kilifa gi ma ngi leen di ziar di ziar téléspectateur yëpp. waaw ki mooy cargo nekk doom ci Maxu Sey yaay nek doomu Miss Saloum nek ah, Saloum. Miss Saloum doomu waaw ah, doomu 32 mois. nek bergerie Almahdi Muntazar. bergerie bi mu Kalashnikov waaw ah, la donc extraordinaire extraordinaire mo fi mais cargo il a 32 mois donc dañ ko pour évaluer par rapport ak fu

ñu leen di wan yan maal moo nekk podium bi léegi bu émission bi jeexee donc ñu leen di jox dig daje ci yeneen foire ak yeneen émission wu découverte à plus incha